ci bay fall yi lañ ko jëlé wala ñi nga xamanteni ñoo di jamaïcain yi nit karawam dina am ay ñañ yo xamni dreadlocks lañ koy wé wala rasta nga xamni philosophie la bu jugé fi nga xamoni mo di Jamaïque nit tamit rafetal boppam dina tax leegi légui tamit mu def ci ay yu melni ni que fuddën ba tax na am ñu xam dañ koy teint mu daal di wéx sax teinture bobu tamit dañ koy gis ci coiffure yi yeneen coiffure yi nga xamni jamono bi sax bokk na ci fi gëna xew waye dafa melni turki la jógee ci joueur bobu ñuy woyé Dabala gis nañ ñu bëri dinañ koy def kii ko gën a vulgariser sax mooy mbër bii ñuy wooyee Balla ci ñu bëri lañ koy toppandoo ci moom dinañ leen wax lu tax ñu ñëw ci coiffure yooyu waaye damay jàpp ci seen loxo ñu ñëw ci waxtaan bu gën a yaatu ci wàllu football. football dafa nekk sport boo xamante ni boo leen xoolee ñan ñoo ko vulgariser ñen ñoo ko daal di inventé créé ko ndorteel la day di ci ña xam ne anglais yi anglais yi dañu nekkoon ñoo xam ne ay mineurs lañu maanaam xam ne dañ naan nekk ci ay mine di gas. boy gas nak sa loxo moy liggey buñu démé ba nga xam dañu wara war a noppalu pause dañuy bëgg nag foo féexal seen xol motax dañi bàyyi seeni loxo noppalu ñu daaji jël li nga xam ñoy seeni tànk ñu diko tagato lool mu indi li nga xam modi football da ngay couper dóor bal bi top ci di daw anglais yi ñoo fi daal di indi waaye anglais yi. bu fekkee ni ñoom ñoo inventé football ñi nga xam ni ñoo ko dox seen lettres de noblesse yóbbu ko ci niveau boo xam ni maara day taal yi ñooñu ñooy brésilien yi brésiliens yàlla dafa def ci wàllu football ñu nekk jëmm yoo xamante ni ils ont le talent brut li ñu wooye le talent sauvage ci wàllu football ba tax na jëmm ji nga xam moo di Edson Arantes do Nascimento soo leen ko déggee kii mooy le roi Pelé mu nit ki nga xam nañ ko doon wooyee l'homme aux pieds d'or maanaam tànk ay wurus la ndax li mu def ci wàllu football ki nga xam gagné le Brésil il na Brésil ñetti coupe du monde benn bi 1958 Brésil 62 mu soit 70 jël ko ak ki nga xam Zagallo coaché Zagallo 58 sax nekkoon footballeur ñu ànd ak Didi Vava ak ñi nga xam ñoo di Garrincha jëlaat nañ ko 1994 Mohamed amaat chef de footballeur bu feeñ modi Romario Romario ak Bebeto toj nañ coupe du monde Bobu jox leen ndam boo xam une cinquième fois 2002 ki ngeen di gis ni moo di Ronaldo Ronaldo ànd ak ki nga xam moo di Rivaldo ànd ak ki nga xam moo Ronaldinho ñoom ñu jëlandoo ko mu mel ni coupe du monde bu Brésil jël rek amoon nañ footballeur boo xam ci àdduna bi moo fi mënoon jóge ko ci Pelé jaar ci Romario jaar ci Ronaldo ak ñeneen ñoo xam ni ñu jàmbaare woon nañ ñu mel ni que Zico ñu mel que Socrates waaye ñooñu nag jot ñu jël coupe du monde waaye bind nañ page histoire footballu àdduna bi fi nga xam moo di Brésil as plus nag comme daf ñuy ci Sénégal lan moy xew-xew bi ak coupe du monde bi Brésil jël na coupe du monde juróomi yoon juróom benn yoon bi la ñuy 6 sixième fois muy coupe du monde 2014 seen dëkk boobu nga xam moo di Brésil la samba foofu lañ koy defee Sénégal bokk ci ñuy jogante pour war a dem foofu ñuy fàttali nag Sénégal mu ngi ci barrage dóor na Ouganda dem na ci barage boo xam ni day tas ak ay équipe yoo xam bu leen daanee war na mën fi nga xam moo di coupe du monde mu fàttali ñoom El Hadj fi nga xam moo di 2002 waaye footballu Sénégal lañ bëgg a taxaw ñetti époque lañu am yoo xam ni dégg nañ ci ay jaloore benn bi dañ naan Asmara 68 ne ñu yóbbu woon nekkoon ñoo xam ni ay jàmbaar lañu ñoom Amady Thiam équipe boobu nga xam ni ca dëgg-dëgg Mawade Wade moo ko doon coaché Bonne génération bi nga xam ne def na jaloore mooy génération Jules François Bokandé Ker 86 Sénégal 92 donte amunu ndamu Coupe d'Afrique waaye Bokandé nekkoon na ko xam moo équipe bi 2002 ñu amaat beneen xeetu footballeur ki leen jiite tamit mu nekk ki nga xam moo Mestal Hadji Diouf l'enfant chéri de Balakos ànd ak Fadiga Henri Camara.

kamen ki ci top moy dafa indi coiffure bi ni woyé dabala koku moo di Sadio Mané mu melni époque bu équipe nationale bu Sénégal dina am vidéo bo xam mo koy bot yóbbu ko ci Bokande jaar ci El Hadj Diouf ba ci Sadio Mané mi nga xam ni Casamance la jugé ci Sédhiou jamono yi ma nga bitim rew du football ci keroog bi ni qualifié contre Ouganda moom moo daal di but bi lolou la leen lon ci sen as plus di leen wax ni nak beneen génération footballeur ñëwaat na ñuy xaar coupe du monde bi ñu yóbbu nu fa ñi ngi war dajé ak Algérie wala Côte d'Ivoire wala Ghana wala nigeria wala Cap Vert bi nga xam ni tànk la loolu dinañ ko xam ci biir septembre bi ñu xam kan la ñuy taseel ngir ñu mën a dellu fi nga xam moo di coupe du monde li nag mooy li leen indiloon ci seen as plus di leen wax nag ca dëgg-dëgg nag dem bi ak dellusi bi day gaaw lool suba rek ngeen amat beneen boo xam ni fi lay xewee wasalaam.